waaw alo alo suma mbokki gambien si man la Samsudeen Sarr maa ñëwaat di waxtaan ak yéen gambien seeg non gambien seeg ñi nekk ci réew mi ñi nekkul ci réew mi te di ba déglu ñu bari nag di ma laaj te jugee ñu ma ndokkale di wax ne li ma wax ñu mu leen a ee yu bari waaw maa ngi leen a gërëm yéen ñëpp tey nag talaata la ñetta fukki fan ci weeri maaj 2021 ma dellu suwaat di continue di wax li ma wax ci affaire yi Gambie bi affaire yi TRRC bi ak li ma foog ne dëkk bi war nañ koo xam li ma dee wax ni yéem nag li ci ëpp yëpp bind naa ko waa bind naa ko maa ngi ko bugg a soppale def ko suma ñetteeli téere yoo xam ne dinaa ko fi bàyyil askan bi bis mu fi yàlla jëlee ba suñ sitaati sitaati suñ buggee xam dëgg gi mun nañoo jël dem ca téere booba ñu jàng ka fa waaw moo tax ma ne lii dinaa ko def audio yi itam dinañ fi yàgg dinañ fi nekka waaw maa ngi ba suma suñ vidéo yañ defaroon <laughs> bañ jàppee doomi xaraam yooyu ataakoon farafeñe ak kaatom benn tey mu ngi ci YouTube bi mu ngeen daayam ngeen gis ko fa ma toogee di leen ngañña di leen wax nit ñu bon ñu doon ak yaaxa-yaaxa ci dëkk bi ak yaaxa-yaaxa def ci dëkk bi waaye tey nag fi ma commencé mooy sax ma seet kii moo ñëwoon démba Sirif Tambadou moom moo ñëwoon ci TRRC bi démba mu nekka looya boo xam ne mook Essa Faal yëpp looya lañ Essa Fall encore laaj mel nii you know ca commencement ba liy xew ci dëkk bi xam ko waaw lan la looya si defoon bi coup d'état bi amee waaw léegi la ne moom Sheriff Tambadou moom wax na ne moom ñoom yàlla daf leen wërsagal seen papa yi amoon alal ni ñu amee seen alal gi kenn xamu ko ñu jàngal leen ñu ñëw taay bi PPP mu ne 1993 1991 la ñibbisi di practice loi. waaw ñoom um, amuñu woon lu leen ñetti système bi jawara bi moo leen gënaloon parce que ñu ngi ci tedda seen seen famille yi tedda ci te ñun xamoon nañ ne looya yi tay laaj na ko looya yi tay bu ñu leen gënoon naa bon amul looya yi tappale rek lañ fi nekkoon di tappale alali jàmbur yi di nax di jaxase nit ñi dangaa ñëw ah, jël looya ne ko dimbale ma ci lii mu jaar ci ron ñu dem ci sa client ba laaj ko ndax loo ma fay ñu fay la nga ñëw def ko ñu ñaaw ñaawteef yooyu jawara daf jawara warewut ci woon jaame yooyu nag daf ko bañoon bandi looya yi saasaay li ma la wax ne saasaay yi ñoo bañoon jaame nit ñu baax ñi di def lu jub bëgg réew mi amuñu woonaa moom pen problème waaye yëfi saasaay tay mi jawara yëfi saasaay rek a nekkoon ci dëkk bi ministre yi ñun xam nañ loolu <laughs> laaj leen ñoom Ibou Diallo man kenn waxuma ko ministre yi dañ daan jël ay yar yari ree leemaar di dugg ci dëkk bi di dóor seen noon yi di dóor seen noon yi dóor ànd ak ay bandi ay toogs yoo xam ne duñ sécurité duñ dara dugg kër jàmbur jàpp papi jàmbur dóor ko bi tëdd ci suuf nga dugg sa moto dem ngeen naan fii la luwaa taxaw sampe woon baax parce que ñooñu bokkuñu woon ci nguur gi time boobu time Jawara dafa amoon ñu bokkoon ci nguur gi ak ñu fi bokkutoon ay famille yu tuuti soo ci nekkul doo doo am jànga bu ñor sa jànga du sori liggéey bu baax doo ko am waaw seen doom yi ñooy mun a dem université ñëwaat remplacer leen dugalante rek a fi nekkoon waaw moo tax ñoom ñëpp loolu lañ bëggoon te loolu lañ nar a defaat ci dëkk bi. ñu am gouvernement boo xam ne kenn du leen wax dara ñuy njuuñ njaaj moom mu ngay wax rakaam moo mooy baatambeedu moo ko doon bu ñu tay bi impasse bi ñoo doon coow naan waa li buñ ko waaw lu di du dëgg du yoon waaye biñ pas pare baatambeedu dañ ko jox justice minister ñu def ko justice minister mu jël alali jaam jaame yépp loo xam ne àdduna si xamul naka la em mu ñu jaay leen ak xaritam yi fay nañ kii hundred million def nañ lebale nañ lii lebale ba pare bàyyi fi dëkk bi loolu nga foog ne su euh, nguur gu am fayda ñëwee ëllëg du leen xoolaat wax ne nañu wax njuñ njaaj jooju fuñ ko teg soo ñii duñ bëgg a duñ bëgg a ceeñ amati fi nañ fi nekk rek nekk di def seen yi fi bandi dëkk bi naan waaw démocratie am na su su ñooy lekkante nag ci mbedd mi ñoom woore wuñ ci parce que dinañ am seen sécurité ci seen kër yi waaye ñii seen jubluwaay baaxut seen taxawaay baaxut waaw moom in fact man li ma ci gën a naxaris li ma ci gën a sox sax mooy ne soldaar suñ ñëwee sécurité bi ñëw police yi ñëw waaw ku nekk soo ñëwee yiroo Essa Faal dina la wax ne la dëgg gi di ci jaar mbaali am am dina la xuppa dina la saaga waaye Sheriff Tambadou bi mu ñëwee am na tur yoo xam ne ñun ñëpp bëggoon nañoo xam tur yooyu ñan lañ ay lawyers waaye nanguwuñ mu wax seen tur dañ ko ne bind ko ci paper soo bëggut wax seen tur bu ko wax bind ko ci paper su doon Essa Faal dafaa ne ko waxal dëgg kan la Yaya Jammeh kan la Tumbul Tamba ak kan la yii ak kan la nga wax ko àdduna si yëpp dégg ko Samsidine Saalum la def wax ko ñu dégg ko you ki leen koo wax ne am na ñu bonoon lawyer yu bon mu ngi wax sax ne gannaaw yu baa association bi ñoom association bi ñu amoon ne lawyers lañ ñoom yi neen jubawuñ na sax parce que ñoom yi neen ay ay criminal lañ ay ay bandi lañ moo tax mënuñu woon a juboo ci dara waa na ko waaye Essa Faal waxu ko bëgguñ ñu xam ban tur kan turi ak tur kan la may wax xëtta googu ñu naan ko docteur Lamine Cissé kooku foog na ne euh, laajte yi gën a yi moo ko dee laajte léegi dama foogoon ne you know um, uh, commissioner Samba la waaye commissioner Samba tare docteur Lamine Cissé ah? waaw bi ngaa binda tur yi foogoon naa ne lu ñu bon ñi foogoon naa ne lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri ngaa binda waaye ndekete lu tuuti la rek koo xam ne dafa ne la nguuri jawara ñetti at rek laa ci liggéey bi maa li bi maa jógee jànga di ñëw ñetti at rek laa xam ci nguuri jawara bi ci liggéeyam you know nguur goo xam ne def na fi lu ëpp ñetta fukki at ngay wone ne waaw nit ñi euh, euh, looya yi bonoon bariwuñ lim koo binda bariwul foofu la waxi xam nga foofu la waxi ku ñora di am waaye ñëpp naan yu ñora di yim de laajte duy duy laajte lu ñor paa boobu definitely man foog naa ne dañ ko fa indi rek moom itam waaw de wax rek ne su Essa Faal waxee rek wax ko ne def nga lu baax yéen li ngeen a wax ci jaame dafa bon jaame criminal la woon lii dalee dalee waaye waa ju gis waay kooku waral nañoo seetaan affaire am ah billaahi si sa war nañu kooku ñorul ah man maa ko wax waaw waaw léegi yéen yéen a ngi ñëw ngeen ne da ngeen a leeral moom Sirif Tambi bi mu ngi wax ne amoon na looya yu bon am na jooj yu bon am na lii su dee Nigerian si lañ dinañ tudda seen tur yi de. waaye yow sax Nigérian yi moo tudda sax dina wax ne ñii ñu mënoon seen liggéey leen ñu xamoon seen liggéey leen daf ko dee wax waaye soo ñëwee ci Gambien yu bon yi waaw bul wax seen tur parce que ñu ngi ci système bi benn tey di liggéey ak ñoom et eh, ça faal balaa moo laaj Sheriff Tambadou du naan ko waaw naka ngeen defoon pas association bi ndax try yoon ngeen pour coup d'état bi ba si coup d'état bi mu ne waaw try nañ pour condemn leen dañ waxoon ne dañoo démonstrer waaye gannaaw gi ñu ne legal IE bi buñ buñ buñ dem buñ dem ñoom ñëpp ñu agréé na su jaamee ñëwee ci legal IE force legal IE bi buñ fa dem you know waaye démonstration ba taxawul legal IE bi ñu bari dem nañ su ma dem dem nañ Essa Fane <laughs> man de dew ma demuloo waaye ba bañ fa jógee da nga dem uti liggéey. Essa Fall dañ ko buggoonaa dugal ci armée bi sax noonu la bëggoon a liggéey ci daa ci ci ci junta bi you nekk fi di lu jàmmee ñoom ñoo doon bind décret yi ñoom ñoom ñoo Faafa Mbay ak ñëpp ñoo doon bind décret yi ay kool Faafa Mbay laaj ko ñoom ñoom ñoo njëkk yi Ami Ben ñoom ñoo njëkk nekk foofu di bind décret yi lu waaye sampa te elefen bi sampa nguur yaa jàmm yëpp looyay suñu ko binda te Essa Fall nga woon ca digga ba moom Sheriff Tambie ba mun naa wax ne waaw moom private citizen la woon moom private lawyer la woon te private lawyer dafa mel ni businessman rek waaw su dee jigéen nga mel ni businesswoman da ngaa ñëw waxtaan sa xaleyaani moo tax moo tax ba mu jógee dem Ndakaaru ne mu ngaa sooyaa ki mu ngaa dem waatal aadama Barrow lu ko gën a ànd ñàkk ànd ci yoon amu ko. mu ngay wax treason loolooy number one treason parce que yow yaa ngi dugal yaa ngee def loo xam ne luwaa yellowul ko àdduna si yëpp luwaa yellowul ko pour mu dem ne moom mu ngaa dem swear Adama Barrow Ndakaaru di fi wax nag looy i fi picc yooyu naan man bi maa génn dañ ma wax ne naa génn dëkk bi ma génn dëkk bi benn bukk rek laay yóbbu by accident waaw accident la mu yóbbu benn bug rek mooy constitution ne dëkk bi non loolu du dëgg dañ leen call from Dakar ne leen kaay leen ñu swear Adama Barrow Dakar te soo déggee ñu ne kaay leen Adama Barrow Dakar parce que xamoon nañ ne United Nations bi sénégalais yi ndax ñoom Macky Sall ñoom nit ñi sénégalais yi ndax ne leen jaabe foog ñu dugg a réew mi ci loxoom. parce que amee mbeeg pëlisam mbeeg ñëpp ay rebelle Casamance lañ United Nations dañ bañ loolu ne leen bu kenn taal Gambia because Gambia am nañ political problème de waaye dégguloo kenn ku fa dee looloo tax na ñu ne pour legalize loolu nañ leen yóbbu Adama Barrow ñu sign ko suñ ko sa suñ ko swear in Dakar dinañ ko dinañ ko mën a use mu saay nañu ne waaw gouvernement bu ees si Gambia bi moo def lii waaye moom wax na ko mu ne ba ñoo def swearing in ba bi ñoo ne dañoo waatal aadama Barrow ca embassy Gambia ba tubaab yëpp dañ bañ a ñëw japanese yi marocain si diplomat si nekk Dakar yëpp dañ bañ ne duñ ñëw parce que li ñoo def ànduta yoon ñoom xam nañ seen réew yi ne ñoo def chief justice moo war a moo war a moo war a swear oo koo xam ne jooj moo ko war a soya oo koo xam ne dafa am notary power notary power waaw kooku moo mun a soya nit under oath waaw koo xam ne dafa am notary power waroon nañoo ut keneen yow liggéeyuloo ci government bi mu dem taxaw foofu ak fitam you know taxaw xamul sax liñ ko li moo def parce que moom wax na ko mu ne bi ñu génnee nataali jàmme bi Bruno Bruno Diatta mooy woon protocole bi ñu ne tay mi Senghor ba tay mi euh, Macky Sall protocole officers président bi yal na ko yàlla yërëm ñu ne dee na ñu ne biñ ko génnee sumay nataali jàmme bi dafa naxare woon naa génnee eh, mu ne bés dañ ko defoon ci wool bi mu ne kooku ëlbate ko ne ko mu ngi bañ even pour génnee ko ci wool bi mu ngi bañ waaye dinañ ko génnee ci wool bi ci ci maraaj bi dinañ ko génnee ba pare dinañ dinañ génnee jàmme ci Gàmbi bi soo foofu loolu kii moom daf ñu wax ni moom dañ leen yëgaloon ne dinañ génnee Gambie bi ay eh, sori dinañ génnee jàmme ci Gambie bi nuñ ko mun a defee baax na ñoom is noon ne nañ ko wax xamoon nañ ne Macky Sall taxaw na pour taal réew mi àdduna si yëpp xamoon nañ ko nataal yaa ngi time boobu ñu ngi koy streamline YouTube gon sure rëy yi ñu doon indi ba pare France ñaa njaay dof bi gën a dof ci àdduna si général bi moom na ñëw a taxaw toog ci TV bi ne sant liñ ko santoon ne ko mu génnee fi jàmme lum mu jaral dëkk bi dañ pare woon nañ pour ëlbati Gambie bi def ko dóom pour génnee fi jàmme ñaawteef googu soo moo tax ñi doon daw di génn Gambie moom mu ne waaw dañ ko advice ne ku nekk loolu la dañ ko advice ne dañ ko na génn Gambie bi su génnul Gambie bi mun nañ koo soo def dara ñëpp loolu lañoo fene ñëpp dañ daw ñëpp a daw close to forty thousand because nit ñi xamoon nañ dañ waroon dañ pare woon a taal réew moom kenn rek nit ñi Sénégal ministre yi seen am di jaama yi Gambie Sénégal yëpp benn la am di jaama ñëpp leen a kool leen daw leen génn Gambie bi ñaawteef ba fa nar am bu leen fa fekk parce que gis nañ ni ñu bari gis nañ ni xaw 1981 te lu gënoon naa ñaaw moo fi doon naa am waaw soo ñi ñëw di ñu kawti kawte di ñu jéem a wax ne waaw man dinaa leen waxal exactly lana happen li xew you know bés ba Yaya Jammeh toogee ne bés ba Yaya Jammeh toogee ne um, dina. nag d'accord ci élection yi d'accordoon naa waaye d'accord ñoom nag loolu benn tey mënuñoo seen seen seen déggu nangu ñoo déggu déggu pour wax àdduna sene leen lii moo tax ñoom dañ ne Yaya Jammeh dafa bañ rek ci coobareem waaye amul dara lu tax mu war a bañ fàtte ne Yaya Jammeh nangu woon na dañuy ko célébrer àdduna si yëpp di tëb di dal naan wooy lii baax na lii baax na lii baax na ñu toogaat ñaar ñetti fan Aliou Momar Mbaye chairman of IEC bi ñu ñëw announce ne dañ def mistake ci record results yi you know man sax su su xel daf ci ñaaw trop parce que you know man xam naa ne jàmme bugaatutoo naa toog waaw man man yëgoon naa ne jàmme bugaatutoo naa toog Jammeh pare woon na pour hand over power si kii um, uh, Adama Barrow wax na ko wax yu rafet waaye man dama foog ne sax gars yi dañ ne rek foog ñu taal réew mi rek parce que ñoom benn tey ñu ngi foogoon ne army bi police jongla si ñëpp joolaa Casamance la loolu lañ doon wax ma ne maa ngi United Nations xam naa li naa wax ñëpp loolu lañ doon wax you know te kenn pusul asi agenda boobu ko doon Macky Sall Macky ak ñoom Fodé Seck ak suñu ambassadeurs yi waaye moom moom moom kii euh, Serif Tambédou ñëw na di dof dof lu ci suñ kaw as if ne moom xamutoon li xew waaw lii ñoom ñoo ko wane kaay excel Gambia ñëwal Sénégal ñu Suyakin dina leen jox autorité parce que United Nations nangu woon pour ñu attaque dëkk bi so that ñoom dinañ mun a attaque dëkk bi ne kii mooy président bi léegi te lu ñaaw lañ la doon daa def te loo xam ne liigalul Essa Faal sax xam na loolu démba ñoom ñëpp xam nañ ne li li liñ def liigalul ja ci yoon ñoom ñëpp naan waaw waaw ni situation bi meloon na waaw euh, loolu yéenay foog nga. foog nga foog nga goma sa bët rek def li ngaa def xam nga lu ñoo wax noonu ne li Essa Faal di coow ñetti at di dóor dinaam lu liigalut warloo koo def lu àndut ci yoon dafa bon lu àndut li moom wax nañu démb ne am na position yoo xam ne soo ci eggee mun ngaa def lu àndute yoon te loolu benn ci ñoom la xam ngeen loolu kooku nit ku nit ku yiw du wax loolu ñoom ñëpp xam nañ ne liñ defoon du dëgg waaye yow ñëw na you know ndamoo nag di jéem ndamoo ne you know nine nine nine nine um, inmates si ñu reyoon you know force ñu wane ne waaw loolu dafa illegal waaw ñu ne um, waruñu wane naa lay parce que jaame dafa rey nit te mu ne waaw moom ci alxuraan la ko jëlee moom moom moom sirif tàmbone ci alxuraan dafa ne soo reyee benn nit rey nga junne junne nit ci àdduna te yaa yaayaa jàmme dafa rey juróom-ñeneenti nit da waaye kon moom théorie bi moo wax ñoom ñi ñu rey ñi ñu rey nag ñi rey ñi ñu rey nag parce que ñooñu itam dañu rey nit ñi. rey ñëpp dañ tooñ ni waaw soo ñooñu itam kon théorie bi moo wane islam dafa aayal rey nit soo reyee nit ñooñu itam rey nañ ay junne junne junne nit soo xam nga waxi ku yi ak ku waxi koo xam ne you yow dëgguwuloo yaay waxee noonu fàtte te li ñoo wax rek la wax bet làmba sa taan te xamuloo ne sa taan ngaa làmba mooy façon ngi nit ñu waaye moom li wax yi fi nonsense la waaw ba pare ñu jógee foofu waaw bu ne moom bi reyee ñooñu ci la tiit dem ñëw pour ñu seet ne gaayam yi senteen son su deet ñoom kii naka la tuddaate ñoom lan tombong tàmba ñooñu yëpp dinañ leen ñu ñu seet naka la ñoo stay execution ñu change seen sentence pour pour buñ leen rey ñu xam ne dañ leen a tëj seen dundu bakkan moom ci la ñëw di toppatoo affaire yi loi te foog na ne lim def moom bokk na ci li tax Yahya Jammeh reetu kii xamul li moo wax xam nga Yahya Jammeh nit ñi xamuñ li tax mu rey ñooñu ñooñu 1997 1997 lañ def jaajaan ñoom élève Jammeh am na ñeneen ñoo xam ne ñoom taboora soo leen ko seetloo ñaata sénégalais ci nekka ba pare ñettañi Gambien si ñetti Gambien si ci bokk yépp 1997 ci gendarmerie camp buñ nekkoon fa lañ dëkkoon biir Sénégal ñoom ñu ñoom 1994 ñoom ñoo njëkkaa coup d'état bi counter coup ñoom pour coup d'état ñoom ñoo ñoom baro ñoo njëkkaa try pour coup d'état nguuri Yaya Jammeh you know ñu bëri ci ñoom loru ci ñoom baro ñoom docteur Fall ñoom sëy ñu bari ci loru ci ñoom ñu daw dem Sénégal seen moroom ñi ñoom bine mbinte gaay yooyu yëpp dañ dem Amérique ñi dem London ñi dem jàngi ñoom ñu toog Sénégal ne foog ñu ñëwaat rek 1994 ba 1997 ñu ngi dëkk ci gendarmari camp ci gendarmerie camp lañ dëkkoon ñu leen a fiit jox leen néeg defal leen lu nekk ñu xëy foofu lañ xëyee dañoo plan pour attaque Gambie ñu bari dem nañ yëgoon nañ ne ñu ngee ñëw ñu ñëw attaque ñu rey suñ soldaar yi jël suñ fetel yi ne ñu ngaa dem ubbi ji prison bi pour taal réew mi yàlla def dimbale ñu suñ soldaar yi gàttandu leen jàppaleen you know in fact ñu xeexa ñoom ñu daw ñu jàppaleen ñi ci ëpp ñoom ñeneen la woon waaye Sadio Akane moo rëcc yéen soo ñooñu yàgg nañ ci kaso bi de defuñ leen dara sentence soon nañ leen te defuñ leen dara ba pare ñoom ñi njëkk a attaque Farafeñe ñoom Mballo Kanté ñoom Souleymane Sarr ñooñu ñoo gën a rey ñooñu rey nañ almost juróom benn nit ci suñ soldaar yi foofu rey yu ñaaw. waaye boolewuñ leen di boole leen ci de soo demee ci prison bi façon yi nationalité bu nekk fa fekk ay ñu nekk death row ñoo xam ne dañ rey nit ñu tëj leen pour pour war leen a rey ñum fa ay Ghanaians sorry ay Nigerians ay Guinée Bissau ay Sierra Leone ay façon yi nit ku nekk waaye boolewuñ ci kenn waaye yëpp sénégalais lañ ko def lu tax loolu ngeen waroon naa laaj dana xew jaami daf ko waxut rek waaye man bind naa ko te di tey dinaa leen wax li xew parce que jaami dafa sonnoon ci yëfi Sénégal dégg naa Alpha Condé ñëw na fan yi yëpp wax na ko gis naa ko bu ñu fa bind ko som waya ñu ne Alpha Condé euh, président Guinée Guinée Conakry mu ne ñaawteef bu am ci suñu région bi pour daaneel nguur pour tas nguuri jàmbur rey président tubaab yi Sénégal lañ ko dee toggee tubaab yi Sénégal lañ ko dee toggee waaw ñaawteef boo xelaat nag mu ne nag xëj na yal na leen yàlla dimbale sonko bi taxaw nii ne dina leen génnee ci njaamteemi tubaab yi ak france yi yàlla dimbale ko mu ñëw génnee senegal ci loolu parce que Sénégal ñaawteef bu nekk lu bon xelaat foofu lañ ko dee defee. so noonu la Yaya jàmme loolu la xamoon ci senegaal parce que tubaab yi bëgguñ ko woon français yi ñoo ko gënoon a bañ ca commencement time yi Abdou Diouf 1994 1996 1997 attaque yépp Sénégal la jógee ci nguuri Abdou Diouf Ablaye Wade bi ñëwee moom moom moom li dafa ñëw rek taal tànga ci kaw Yaya Jammeh moom it nekk na fa bi ba mu génn try na façon yi machinerie bu nekk ubbi buntaam yi pour façon yi nit ku bon ku nekk ñëw senegal pour daaneel nguuru Yaya Jammeh bi moo tax 2005 li ñoo wax ni machinerie si ay Ghanaian si foreigner si benn tey dañ xamut ñan lañ parce que Jammeh moo gënoon a baax ci immigrant Jammeh moo gënoon a baax ci migrant pour ñii ñu ñëw ñu rey leen ci dëkk bi. ñu waxee ne noonu lañ leen reyee ñaawteef loolu am na lu ci nekk luñ bañ a wax te time boobu man yëg naa ne ku koy ñoom Sadia Kali ak ay mercenaires ñu ngi leen a ñu ngi leen a train Sénégal pour ñu ñëw attaque Gambie bi soldats yi wax nañ ma ne weer ñaari weer ñu ngi toog di xaar mercenaires yi pour ñu ñëw su jàmmee dafa sonnoon ci loolu soo nag ñëw na ki time yi Macky Sall Macky Sall lan la def. bim toogee mu ne moom jàmme laa njëkkaa dem seeti yow suma nit nga suma xarit nga yëfi Casamance bi dinaa ko bàyyi ci sa loxo ñëpp kuma euh, euh, jéem nañ mënuñ ci dara waaye man dama la ci yaakaar Gambie ak Sénégal mu foog ne nit ku yiw la xam nga euh, Macky Sall ko gisee ak déggoom waxam nga foog ne nit ku nit ku baax la nit ku yiw la. waaye you know bi mu doon léegi nit ña xam nañ ko xam nañ ne kii baaxul lu niiwul waaw soo bi mu ñëwee wax yaaya jàmme yaaya jàmme nangu ne ko man dinaa la defal loo bëgga ñu toog ñu jékki-jékki gis Sidiya Bayo egg si Sénégal Sidiya Bayo ta ba mu egg see ne dina ñëw taal Gambia dina génne yaaya jàmme by force ñu naan kii mooy kan ñu ne soldat la woon ci français ami français bi la nekk benn kenn waxul ci àdduna si ne li Sénégal di wax nii dafa ñaaw ECOWAS yëpp ñu ngi koo gis waroon nañoo wax Sénégal ne leen yéen ñi kenn du def lii sa sa neighboring country waaye kenn waxul waa dëkk bi dañ ñu ñëpp ñoom célébré xam naa ne ñoom ñoom maa si tàmbee doo ñi gis nii léeg gaay yooyu yëpp ngi woon ci ron naan way kaay kaay taalal ñu réew mi parce que ñoom taal réew mi lañ bëggoon Sidya Bayo man xam naa loolu Sidya Bayo nekk Sénégal ñu ko jox ay gardes ay garde ñu ko toppa muy toog ci télévision yi di làkk francais xam nga Sénégal soo ñëwee di làkk francais yu ñor nañu ni woo wajaa ngi ma man tey boobu nit kool na ma ba Amérique naan ma see yéen seen coono wàcc na tey boobu xam nga man tey boobu amuma koo jaamee ah bàyyi woon naa nag di ko wax lu ñaaw waaye bàyyi woon naa di ko wax anything because time bu réalise naa ne man génn dëkk bi sax moo gën ci man baalalante ne suma xol baalaloon ma ko everything loo xam ne doxoon na suñu diggante waaye mu am ku ma koo ne ma eh, kii de moom Sidiya Bayo xam nga ko ma ne leen man xaw ma Sidiya Bayo ñu ne eh, Gambien la mu ne France la juddoo waaye léegi soldat la woon mu ngi fii mu ne dina attaque bi ñu ko di sol ay sut ndekete taxi driver la woon rek doomi xaraam gi xuppa dëkk bi bee xuppa xuppa xuppa dëkk bi yëpp xuppa kenn waxu ko xam nga di façon yu ñaaw yooyu ECOWAS waroon nañoo jóg ne au oh, African Union African Union bi mënoon nañoo jóg ne lii lii am ni su doon Amérique nga def loolu su doon Amérique nga def loolu drone la sànni rey la ci biir Dakar foofu lañ ko reyee parce que façon yi nit ñooñu Amérique duñ leen dee toléré ñoom alwalaaki bañ demee Yémen ay Américains ah. ne dañoo ñëw lakkasi Amérique dañoo seen ay terroriste ay drone lañ ko seen rey koog njabootam yépp loolu ku ko def Amérique america songa réew moom waaye Gambie amul doole nekk foofu di ñif ñi dinaa ñëw dinaa def li ñëpp di ko célébrer man ma xamoon naa Gambien suñu bëri biir Amérique ak Europe ñoo xam ne dañ doon apply pour bokka ci organisation yi organisation yi kii Ah, Sidya Bayo parce que foogoon nañ ne Sidya Bayo dina mën a taar réew mi you know ñëpp naan mu ngi nii ñu ñu ngaa utati liggéey as typical of the Gambian su seytaan jógee àllaaxira egsi fii sax ne damaa def nguur da ne ko waaw daa dinaa ci am liggéey waaw Iblis su wàccoon ci àdduna si ne dafa sampa nguur Gambien si ñu bëree bokka ca laay ba ne ñoom liggéey rek lañ ci soxla nguur gu mu sampa ba ànd loolu la xappoon noonu Sidi Abayo ba moo taal loolu ne dafa taal si Gambia bi Gambien si nekka Gambien si nekka eh, ay Europe xam naa ci ñu bari dañ doon apply pour job pour su ñëwee ndax du leen def job di leen jox lu ne mu mën a ministre di ma jox you know mu dig leen di leen ko def xamuñ ne kii criminal la nekk foofu gis nga ci diggam boobu jàmme itam gëmoon na ne ñaawteef bii la gaay bu Sénégal bu ko def soo moo tax bi mu waxee ne dafa yur waa ngeen baal ma foofu dama am texa texa maa ngi continuer wax ji waaw bim waaye ma ngi leen a wax rek Sidiya bi bim ne dina ñëw taar réew mi jàmme xam ne mënatu ci dara kenn waxu ci dara nit ñaa ngi koo support àdduna sañ koo seetaan muy wan nag Macky Sall ne ko lii exemple la ñiy jógee Casamance c'est sa military camp ñëw attaque réew mi reyal ñu suñ li fi ne dañoo taar réew mi ci la ay fete ne ñu ubbi ci président ba gis nga lii dinaa la wan exemple ne la reyante laa ci pare ci la génnee nine people yoo xam ni two of them sénégalais lañ you leen ñu execute leen te ñëpp dañu rey nit boole ci Tabora Samba Tabora Samba sénégalais la dafa rey jëkkëram tuur ko déw mu tàng wit mu dee waaw you know moo tax mu def ko waaye yéen yëgu leen li xew you know yëgu leen li xew gaa yi doon tëb di daal ba mu ko defee ci la ECOWAS door di dugg si di génn ku nekk di wax président yi maa ngi Goodluck Jonathan sax ñëwoon na di wax ñoom ñëpp di wax naan ko baalal sabari sabari. waaye cala la Sénégal gëj a wax affaire yi ca ca la Sénégal a wax affaire kii de naka am Sidiya Bayo ca la Sidiya lem geenam toog waxatu dara waaye Sidiya Bayo ca la door yëpp naan kii ay kaw yee la parce que xa óor na ma ne jàmme am na ñum kool di leen wan ne leen Sidiya Bayo ngi nii taxaw pour taal suma réew mi soo wax leen Macky Sall ni man lii laa ko wan ne ko bés mu fi ñëwee dañ waxoon ne wow lii lii. Macky Sall dina attaque eh, ya Jammeh Macky Sall dina attaque Jammeh li mu def nii sénégalais yi mu rey te waru leen a rey lii la waaye Macky Sall doful jënne jàpp ko mu tëboo ne dafa attaque Gambie bi at that time parce que time boobu suñ ñëwoon Sénégal rek suñ takkoon seen diggante dañoo dugga dañ leen a jéngu ah dañ leen a jéngu la gënoon naa ñaaw 1981 mooy gën a amooy am ci dëkk bi parce que loolu du xeexi yaa ma doole loolu xeexi ngor la loolu xeexi fippu la fippu waaw ñu ne sa muus soo tëjoo moom ci néeg ne da nga koo jaay ne yàq ko ëppa doole su fippoo soo moytoo dina la rey dañ doon fippu ji su Sénégal jógoo ne dañoo dal ci suñ ko at that time loolu la moo tax mu dem ñoom moo tax bi 19 naka 2017 16 ñu dem fen fen yu tooy xepp United Nations ba pare boole ci xëta yu mel ni ay Buxaari ak Ghanaian président bi use ne waa Ghanaian si dañ leen reyoon ak kii ñoom kii naka la tuddaate um, Johnson mi nekkoon Liberia kooku nga xam ne mosut a juboo Yaya Jammeh you know ba pare France nekk seen gannaaw nag moo tax nag ñu amoon gars yi ñu am ñu naan international international lifin la naka la tuddaate military force la buy ñëw. pour fi génnee fi Yaya euh, Jammeh waaye Sénégal ñoom dañ doon ñoo laaxoo rek pour ñu jàppale leen parce que xamoon ne ñoom kenn duñ ko mun te su xeex bu commencé woon dinañ dinañ dinañ ko fi génnee mun nañ koo rey sax force minute si waaye soo moytu li xew Irak ak Libya moo doon xew ci dëkk bi te ñoom bañuñ ci woon loolu soo lii soo leen dégg soo leen defi ne audio bi ngeen wax ko ngeen yokk tàmbeelu ngeen ne ko. waaye ku daanu sareet mooy wax ni waaw nay nii ñu reyoon noonu moom moo tax mu stam waaw parce que moom moo dem dugal ay legal grand yaay jaame dafa kee woon ko nay tàmbeelu keewu ko woon loolu leen naxare woon parce que xamoon ne ni ay bunch of criminals lañ waaw su waxoon dinaa ko setal balaa ma wax dara ci affaire yi li ñu daloon United Nations waaw parce que euh, United Nations la fa xew bind naa ko bindaat naa ko waaye ñëpp a ngi ko nëppa nëppal waaye léegi dinaa ko wax ci olof ñu ko riidut ñu ko jàngut ci paper xëy na amuñ jot pour ñu translatal la ko parce que ba nga doon waxa jàngakat yi waaye jàngakat yi ñoo gën a jubadi léegi dinaa ñëw ci askan bi wax leen li xew parce que léegi tiyaara at civil fi ñu mujjee rek mooy nañ leen indi ñi ñuy wax ñoo xam ne ñi doon gën a def ñaaw ñaawteef ci dëkk bi indi leen génne leen waa dëkk bi Yaya eh, Jammeh bonoon waaye dëkk bi lii lii lële ma ne sol Marena Thierno Marena of biñ ko indee xëy na expectuñ woon ne fooguñ woon ne dina wax li mu wax ne leen lu bon li Yaya Jammeh def loo foog ne Yaya Jammeh léegi soo ne ne Yaya Jammeh dafa def lii dafa def lële ñun Gambien si ñoo ko ko def loo wax na ko looloo xam ne xëy na sóobaale ko ba pare mu ngi wax affaire yi benn français benn jàngkati français borom xam-xam mu ne dëkk bu nekk presque eh, njiit li nga am façon ngi nit ñooñu moom la leen yàlla moom lañ waroo waaw njiit li nga am moom nga waroo kooku nga war a am waaw loolu loolu dëgg la njiit loo am ci dëkk bi moom la dëkk boobu disaaf loolu la ko France euh, anglais yi day wax waaye soo ñëw fii di ci tëlif kenn bal xaw ma kan ay ñëwati tey waaye di jéem a yéegal waaw nag naa fexe yi balaa bi toog ñuy jooyantu jooy ñoom xam ne li ñoo wax amul maanaa waaw yow doo ñëw naan waaw jàmme dafa rey soo reyee nit you know um, soo reyee ni rey nga junne nit wen yow ñi ñi ñu rey dañu rey nit ñu ñu rey junne nit ah su nañ leen wax yëfi nañ leen bàyyi yëfi caaxaan yi nañ leen xam ne dëkk bi juboo lañ soxla suñ buggee dëkk bi dem kanam di naan nal seen mel da la wax mooy ne juboo leen ngeen ànd ak kàddu ngeen dem ca kanam waaye ne kaleen kaay la ñu seet ñeneen ñu bon ñu fay ci ñoo ñu ne tas réew mi toj réew mi te ñii toj réew mi toj réew mi you know pare nañ ko ah yàgg nañ ko pare 2007 benn tey 17 benn tey ñu ngi wisoon ne tojoon nañ réew mi te suñ moytuwut li ñoo ñaan nañ ko moytu yàlla moom ko ñu moytu moom ko posi suñ boppa waaw parce que ne ñaawteef kenn du ko nangu waay oh yes kenn du ko nangu ñi ñoo wax yëpp naan ñoo nekkoon di taal mesure ci impasse bi ñoo doon coow ñoo doon wax li ñu ñoom ñëpp seen famille si dañ jëriñoo ci système bi you know ñoo nekkoon fii di pampa jawara jawara mu ne jawara benn stupid question buñ ko laaj ne naka waaw tay mi jawara lu tax nga foog ne tay mi jawara looye yi looye yi dañ juboo woon ah, nguur googu bi jaame ñëwee looya yi mënuñoo juboo nguur googu mu ne ko waaw xam nga Jawara démocrate la woon moo woon di father of democracy Africa yëpp moom lañ daan wax ak you know ñëpp àdduna si yëpp dañ ñëwoon kii mooy father of democracy waaw ba pare you know jaame nag moom du non loolu du dëgga Jawara ay father of democracy bi tay biñ ko coup d'état àdduna si yëpp dañ doon wax ne na fi jógee man xam naa loolu american si dañ doon dii la ñooma ah. européen si kenn bugaatu fi woon Jawara saka ba mu ñëwee wax ne mu ngaa dem dafa dem 1992 moom ba faa bàyyi àdduna si yëpp di ko célébrer su ma gis président bu wax ne dafa dem àdduna si di ko célébrer ne ko demal demal demal ba mu des ci Jawara parce que ñëpp doyaloon ci Jawara waaye bànde mi ñëw nax ko naan ko waaw yàlla wax ne jotagut bul dem mu ñëw toog naan yàlla jotagut yàlla wax ne jotagut time boobu BBC man maa ko déglu programme lañ ko defal dañ dañ ko kukkalee reekoon mokko wane ne kii paa bu ñàkk fayda la loolu lañ ko doon wax oh yes man déglu naa programme boobu parce que yow doon nekk ci nguur ay ñetta fukki at ak ay dem ay ñetta fukki at ak ñaar parce que Jawara 1959 ci la ci la ci la ci lañ ko force def prime minister ci pour Gambia bi prime minister 1959 area boobu la 59 60 yooyu ci la nekk premier nekk fi ba kañ 1994 ñu naan kooku démocrate la non dañ daan sàcca élection yi. NCP laaj leen NCP tay mi ñoom ñoom sérif di ba laaj leen soo gisee ku koy te ku koy NCP la woon taxaw na élection ci dëkk bi ci NCP mu daanu soo ñëpp waxoon ne NCP sax ñoo ñoo ñoo ñoo fon ku koy pour mu dugga dem jël bokkaakaay fil force yi pour ñu overthrow government bi ba pare biñ demee State House boo Bojang ki ñu àndaloon foofu lañ ko reyee bañ ko reyee ñoom ñoom Kukoy bi eh, time bi ñu reyee Kukoy dat guddi Kukoy dafa jógee foofu dem kii straight kër Serif ba according to narrative bi bi mu demee ñu ne Serif Diba ne bugg koo gis mu dem waaye ñëpp dañ ne woon NCP bokkoon nañ ci ñi pousse pour coup d'état bi am time bu mu ne ñi nañ ci Jawara even 16 years def na ko. su bàyyi woon tay boobu xëy na Sénégal sax li ñoo wax ni kon am nañ ko parce que dafa jox ab Diouf you know oo mu ne xaaral ma def benn taam ma dem mu mutal benn 20 years ba pare coup d'état boobu waxuñ la ne rey Sénégal dugga si nañ ci dëkk bi rey almost about junne nit waaye waa NCP. laajal laajal kii naka la tuddaati euh, ñëwoon na ci euh, ci TRRC bi sax you know fàtte naa tur bi waaye moom Kemeseng Kemeseng Jammeh waaye na ko almost ñoom ñaari junne lañ jël yóbbu leen field force ci kampi yi ñeneen taati neen yaramu neen lañ leen def taaj leen ci mbedda mi ci biir difin bi ñaari at yóbbuwuñ leen koot bi Amnesty International ñoo ñëw di coow affaire ñaawteef boobu ci dëkk bi time yi Jawara waaw Jawara human rights la woon Jawara time bi 1994 àdduna si dañ doyal ci moom set kenn buggaatu ko ci dëkk bi human rights bàyyi leen yi fi golo yooyu ak li ngeen war a wax xam mooy ne li nga war li li Serif Tambe du waroon naa wax mooy ne difference bi between Jawara jaame mooy jawara nguuri bandi bu neex lu la neex def mooy nguuri civilian bi ñu amoon foofu time civilian time boobu kenn amatul conférence jawara moo tax mu indi soldat nigerian si ne leen kaay leen garde ma parce que óoloon na ko ne soldat Gambie sax mënatu óolootu leen jaame mooy nguur gi ñëw ne saasaay bandi yëfi njublan toog ci kaw euh, miskin yi ak aji néew doole gi du fi amati waaw te loolu ñoom bëgguñ ko moo tax jàmme bi mu ñëwee you know amul kii suma papa la moo nekk ci position bi kii suma yaay la moo nekk fële ñëpp la jàngal ubbi université si ubbi collège si di joxe scholarship yi you know build schools time boobu soo ñëwul Banjul doo mun a dem high school. mbaa nga dem makkaati fëre xaw ma you know um, uh, um, makkaati name of that school again high school amu fi woon soo ñëwoon Banjul Serekunda area bi doo am high school jàmbe bil la leen high school fu nekk bil la leen primary school ñëpp di jàng ñoom nag bëgguñ woon loolu ñoom dañ bëggoon ñëpp neel ka ndóol ñoom i neen ñoo am li ñoo am jël seen doom yi di leen jàngal ñu dellu si ku nekk samp sa néeg bu rafet sa kër gu rafet di dawal sa oto waaye ñi ci des buñ suñu amut luñ lekk sax moom mooy démocratie waaw loolu it façon démocratie boobu lañ bugga c'est réew mi ni mel ku nekk di same ku nekk a ngi dawal sa moto yu neex samp sa kër waa am lii am lale soo waxee ñu ne danga nga añaan non affaire bi du affaire yi añaan affaire bi mooy ne réew ku ko doxal danga nga koo def pour ñëpp. àdduna pour ay ñu benn benn nit ñoo xam ne dañ soxor dañ fuxali ba pare bon ci nit ñi waaw dem nañ ba sécurité bi fi mu nekk kenn xamul fan la jëm foreign troops soo ko indee ne la kaay gardeel ma suma réew <laughs> kon yow defaguloo dara soo affaire boobu nag fi yëfi yëfi nonsense la man nag fii laay emalee wax gi parce que wax naa lu bari you uh, um, naa nag pour dugga ci affaire yi impasse bi loolu laa leen pare woon naa wax impasse bi naka la demee 2016 dinaa ko commencé bés bi ma ñëwee ci dëkk bi balaa élection bi li ma gis ci dëkk bi bési élection bi ak bi ma fee jógee di delluwaat Amérique ak la fa xew ñi togga jàmfaa bi muy suñ ambassadeur si bés biñ ko toggee ak Sénégal take over ñu naan ñu coalition coalition coalition baa nga tas bés bi yaa jàmme waxee ne d'accord ci élection bi ca élection la coalition bi tas parce que kerek la Sénégal jël affaire bi ci suñ loxo United Nations foofu la suñ ambassadeur si agréé ak Fodé Seck moom woon Sénégal seen ambassadeur ba ca United Nations foofu lañ amee meeting fekkuma fa nag su ma fa fekkoon xam nga ne duñ fa ñëw fekkuma fa ñoomi neen ñu toog koolante ñoomi neen ñu saay ne ñoom jébbal nañ waxi change government bi ci Sénégal na Sénégal génneel leen Yaya Jammeh ak niñ ko mun a defee baax na ñoom ñëpp ñu saay dinaa leen wax ñu ko saay naka lañ ko defee fu mu commencé maybe tomorrow su neexee yàlla thank you very much ngeen ngeen indoo jàmm